ci bëre ci xeex ci daan. Mhm. lan nga ëpp Laurent. mbër la mbër laa ko jàppee. lan nga ko ëpp. maa ko ëpp lépp nag li làmb di laaj. Mhm. maanaam yaa ko fit. maa ko fit maa ko doole maa ko dàq bëre. ah yaa ëpp doole Laurent. wallaahi maa ko ëpp doole maa ko ëpp fit maa ko dàq bëre te kam kañ la ñuy xam maa ko doole ñu ne runkum daje. <laughs> billaay ñoo xam ne maa ëpp doole fukki junni yoon ëpp ma doole benn yoon sax ñi ma daan di leen daan ñi ma bëreel du bëre ñoom. victoire yi maam amagu ko. Hmm? waaw. ban moment nga sentir yaa ko ëpp doole bi ngeen taxawee wala da nga koy gis te moom du la gis wala da nga liggéey loo xamante ne wóor na la ni li li nga daj moom daju damay liggéey lu xam ne wóor na ma li may daj du ko daj te damay dalanteeg ñoo xam ne damay wóor na ñi may daan du leen daan seen écurie amuñu poids yooyu. seen écurie am nay ponkal de. maanaam man ponkal li may dalanteel moom jàmm gën ci moo am ay ponkal waaw mais seen ikiri ñoom amul ponkal xam nga da nga ne jàmm gën te ñoom ki ñuy diir mbagg da leen moo tax ma ne la ñoom seen ikiri amul ponkal boo xam ne ñi may daranteel toll nañu ñooñu amuñu doole diir mbagg mooy lan <laughs> wax laa la wax maanaam gis nga boo juddoo si gox nekk xale soo bëggee ñëpp jox la cër da jox nit ñi cër dalaa joxul ci yow no man waxuma man. kan. <laughs> noo wax dégg dégg la laaj. déet man kay dégguma man kay lu ma fi jógee ci ay kàlla. kay la déggoo lu ma la ma ne la. waaw ah. soo nekkee si gox mujjee faa ñëw ña nga fa fekk da nga leen di jox cër. comprendre ma de. <laughs> doo gaaw comprendre ndax foofu laa mun a yem. mais moom di nga xam xam na li ngay wax. non moom xam na parce que bu ngeen déggee signature ba 2STV am na lu mu wax. maanaam tey su ma fekkee man ci gox Boy Jules sama kanam damay nangu mu nekk sama kanam parce que moomu jiitu ci li may def. su ma bëggee ànd bi neex su ma bëggee Boy Jules jëm sa kanam damay topp ci ginnaam parce que loolu mooy yëfu nit mais yow munoo nekk xale ne alliance yi am mujjee ñëw ci bi ba pare di diir Boy Jules mbagg foo ko teg day yàq sa làmb rek du la yóbbu sa loolu ak njàmbaar rek. man su may jàmbaar damay jàmbaar koo xam ne ci àll ba la dëkk mais pas bi may xeex kooku du ko xeex may jaay jàmbaar comme moom man joobee ma noonu drapeau bi ñoo bokk di ko xeex sa ginnaaw laa nekk parce que yaa mu ci jiitu. waaw noonu laay doxee man. mais dafa bëgg a dëggal loolu moo tax xëy na mu jël kon xam nga li ma lay wax. de man xaw yaa ngi ciy tontu. non li nga wax. li nga wax ci li nga wax rek. ci loolu comme xam nga li nga wax rek tontu nga si jeex na. waaw d'accord léegi est-ce que du loolu la bëgg dëggal moo tax mu jël la. waaw kay léegi laa mu jaa ngi noonu comme man la bëgg a dëggal moo tax mu jël ma bu arbitre soufflé bu ko neexee moom bu mu bëree na taxaw man arbitre bu wàccee loxo bi parce que Serigne Saliou ma dal si kawam. aw ma si tànk ginnaaw. su arrière nag def ay stratégie demee latéral. maanaam fu mu dem ma fekk ko fa. yow géewu arène nationale bi nga fi jeex loo géew bi may contacté billahi mu ëpp arène nationale suuf man dama dem fu bëri suuf di fa contacté combat bi def na def naa trois mois Pikine teguñu ma bët damaa génn dem liggéey parce que daf maa jaral. daf la jaral ma dem liggéey nëbb sama bopp jour signature bi laa ñibbiwaat Pikine parce que damaa war a contact mais man xam naa li ma doon daj te xam naa li may xaar. Mm, dafa mel na fi waxoon ne nag mbaru TikTok la comédien la. moo xam nga nit adversaire boo demee bay bëreeg moom rek da nga koy considérer comme mbër parce que tey mënuma di bëreeg moom ne comédien la mbër la comme man man mbër laa ñaari mbër ñoo dajee di bëre. Mhm. combat bi lan la la jaral. maanaam combat bi moo may dugal ci làmb moo may génne làmb ci. soo ko daanee. mënuma yóbbu mënuma yóbbu fenn mais mën na ma may dara. su la daanee. mun na maa génne làmb ci. maanaam mën nga ci bàyyi làmb ko moom mun na ma génne làmb ji boo déggee. génne làmb bàyyi génne la bàyyi làmb wala. parce que bu fekkee yow da am neuf victoire ku am deux défaites daan la moom war nga mun a yàlla nag moo xam lii xew. waaw jàmm bu ne day sabablu. wallaay te ku doon may sa bopp dangay am. Mm-hmm. mais bu la daanee sa génn làmb la koy bëreel. kon lépp lu lu mu war ak bis boobu dinaa ko def di ñaan suñu borom mu defal ma ndam bu sedd guy ci barke Seydina Muhammad Hmm. Mm-hmm. xam nga lu tax dafa am lu ma waxoon signature ba xam nga nit koo xamul nga message ko saag ko ndey koo xam ne xamoo ko làmb rek moo leen boole barki Serigne Saliou bi ma saaga manager am mu may dégg damaa jël saaga bi tontuma ko transféré ko manager am. Aline jël ko transféré ko Laxat Ndiaye parce que moo dox làmb ci. pare naa ci ñu pare partagé numéro yi chaque jour dañ lay dinaa def noonu mooy loolu mais du ma la. mais est loolu war na la mën a déstabiliser. billahi mënul dara si man bëri nag combat bu gën a métti mbapat bàcc seeraas ikiri bàcc seeraas na nekkoon dañ may kocc yow si saret dañ may dóor ay xiir damay taxaw jaante ko te bi arbitre soufflé dama kaa daan man loolu munuma yóbbu fenn mbapat bi muy métti man dama doon dugg ginnaaw raay di bëre di dem jàmm gën di bëre kon man loolu munuma am ay tànk yi. moo ay risque. fukki junni yoon barki Serigne Saliou li ma def si mbapat du ko def si arène ñu ma xam dëgg boo leen laajee maanaam damaa ñëw ci làmb ji xeex ñëpp jàpp ne xeex rek la mun mais bis bu ma bëree ñu xam daal mun a bëre. Hmm. te làmb ji mun na jeexee ci bëre. ah waaw. comme na jeexee ci dóor. mun na jeexee ci kaaw mun na jeexee ci bëre. kaaw waaw. ngeen ñaar ngeen di joxante ba kenn waay. du du du ma dóor. lu tax du la dóor. ñu mën na laa bañ a dóor. man maa la ko wax bu arbitre soufflé bindal li ma la tekki du taxaw benn place. day fayu de seen conseiller la. xam nga bu fekkee ki mënul daan Pape Ndoye ku am bu amoon luy daan day daan Pape Ndoye mais yow amoo luy daan nga ne da ngay ngémbu mbër pour mu daan la. Pape Ndoye man. maanaam moom kii nga xam ne moom la yaakaar si làmb ji. Ah. bu amoon luy daan day daan Pape Ndoye. ah taqe ngay wax. yow amoo luy daan nga ne da ngay daan alliance te yow bu amoon luy daan jox ko sa bopp nga ne da ngay daan man gëmu ko de te li ñu wax gëmuñu ko xam la ma tax gëmu ko gis nañ ne ful bi moo topp booy bi te ñoom ñu ngi pare combat dañuy jéem a taq ci booy bi pour buñ paree ful bi topp leen. te ngaa wax say wax te génne ci taxe la wax man taxe bu suba laa jógee si seeraas doon am lu ma doon jënd gis naa ko gis na ma man ragalu ma loolu déggoo mu ne ma mel la man seul maay battre score bi du ma ànd kenn fu ma jëm maay sama indépendance maa loolu na ci yow man aw ma tànki ginnaaw noo toll dama lay affronté muy si biti muy si biir barki Serigne Saliou am na benn kilifa bu ma doon àndal bu mag génn nañ fi dem mbuur ay trois ponkal man ñu ñett mu may dégg kilifa bu mag buy ñaan fii Serigne Saliou xam ne dañoo dawal seen oto dem bàyyi ma fa loolu man ak ñoom ñoo ànd la mooy loolu góor yàlla dina daw moroomu góoram tolluñu foofu si làmb ñu di moytu kenn maanaam man su ma paree postiaray laa teg sama siège raatale mu dem. déet waay. bu vingt bari nañ coow bu vingt cinq décembre bu vingt cinq décembre jàllee di nga si xam dara. ci alliance. wallaay aw ma la maanaam combat mu ma bëri woon yëpp combat bi moom laa jël mu gën ma metti suma làmb te man maa ko jël parce que ñàkk yar gu ma si fekk. wallahi mbër bu ma bëreel sama xarit nga dund damay déglu ay vocal am damay am gàcce parce que am na luñ luñ jot a dund man moom macca noonu amul kenn koo xam ne bëri naa ak yow ñu nekk ay ennemi amul wallahi barki sëñ baam ñoom ñëpp samay xarit lañ parce que lam benn fan la day jeex tey safaan bu amee ñun dañuy dem mbégte bu amee ñun dañuy dem kon war na mun a rafet avant dara mhm. mais koo xamul nga saag ndey dépassé ko saaga ba saaga sama grand woo ko téléphone saag ndey lan moo ko fi jar amul njëriñ mhm. ki ngay saaga bu arbitre bi soufflé boo moytul moo lay saaga moo lay duma mhm. barki sëñ Bamba journée le 25 décembre nan ko ko gisee maanaam plateau bi Baba Diaw andi maanaam Baba Diaw dafa def loo xam ne lépp ay grand combat la parce que tey boo gisee mbëri bëri foofu yëpp ay mbëru garan combat lañ tey mun naa ne un ba neuf wala un ba huit ñëpp mun nañ bëre garan combat nga fere xaalis bari man li ma fay si lamb ji mhm. géej naa kaa fay ko sama contour dund mhm. parce que comme ku ma combat nii la demee woon promoteur bi tëdd làmb ji ak dund ay xarit lañ ak ay xarit lañ mu bëggoon làmb ji fay ma xaalis bu bari ma man ak macce noonu combat boobu moo ñëwaat mais bis le vingt cinq bi dafa am lu muy yokku mbër mooy dafa nekk bis bu mag te ay ndaanaan ñoo ko daan bëre ñu dem ba ay xale di ko bëre kon sant yàlla la ci làmb mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. nan nga nar a ñëwee côté mobilisation ambiance maanaam lépp luy neex si làmb ji dégg naa mu ne moo koy def man Pikine laa dëkk te fii suñu toolu maam la waaw arène baa ngi ne la kay suñu toolu maam la